يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول njàngub alxuraanul karim waxu borom bi subhanahu wa taala ci nañu ubbi cérémonie officielle bi ci teewaayu sëriñ abo mbàkke di xalifa njabootu kër sëriñ muhammadu falilu mbàkke sët yi ak sëtaat yépp nag teewee ka waaye itam ñu ràññee ci teewaayu njabootu sëriñ tuuba gépp xalifa général kulu murid sëriñ cheikh sidi moxtar mbàkke ki ka fa teewal nag ci cérémonie officielle bi ki amee kàddum di sëriñ cheikh basiru abdul qadr waaye itam ràññee nañu ci cérémonie officielle bi kilifaay diine gi ci biir réew mi yëpp yónnee nañu seeni ndaw jiitu réew mi mag yi sàll yónnee délégation bu takku ki ko jiite nag di jawriñ gi di Aly Ngouille Ndiaye waaye itam parti politique yi kenn demul itam ñu des ku nekk yu yebal nga sam ndaw noone nag nañu daal di jublu ci waxtaan wi kàddu yi fa jib ñëpp toftalante ñu doore kët ci sëriñ fallu buso di boroom xam-xam daal di dikk ci solo gi nga xamante ni isra wal mixraaj am na ko te di màndargal ràññaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli juróom yi nga xamante ni jëlee naka fa ca boroomam ci ràññaan bi porte parole xalifa général kullu murid sëriñ cheikh basiru abdul qadr gannaaw nag ci turu xalifa général kullu murid di dina ndokkale njabootu kër sëriñ fallu gépp te ki nekk ca bopp ba di seen wasila di sëriñ abo ibnu sëriñ fàllu Mbàkke daal dina nag eh, dikk ci li nga xamante ni moom moo di dénkaane yi xalifa général kullu murit di dénk ñi dëkk ci dëkk bi ñu fexe ba sàmmonteeg teggin yi nga xamante ni moom la boroom dëkk bi bëgg te bokk na ci teggin yooyule ñu fexe ba am colko ko bu rafet muy góor ak itam muy jigéen lu aju ci téere boobee nga xamante ni di professeur Sankharé bind na ko te ñëpp ñaawlu ko porte parole xalifa général kullu murit ne naam gannaaw ga jéggalu na waaye ab jéggalu foog nga teg ko ci tuub boo xamante ni tuub bu sell lay doon te bañ ci dellu gannaaw ga nag ñeneen yëkkati nañu seen kàddu toftalante dellu ci li nga xamante ni moom moo di borom bis bi ñuy màggal te di sëriñ Mouhamadou Falelu Mbàkke di guddi gi mu gane si àddina wane nañu jikkoom jëfam ak itam kéemtaan yi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala defal naka ka jawrin yi nga xamante ni moo di Aly Ngouille Ndiaye jiitu réew mi Macky Sall daal dina daanaka sukkandiku ci màndarga yooyee ngir gën a wone ki nga xamante ni moom moo di borom bis bi laata nag muy ñaan sàkku ci njabootu kër Serigne Fallilou Mbacké ñu ñaanal jiitu réew mi mission bi nga xamante ni moom la ko yàlla dénk mu defal ko ci ndam waaye itam nawet gi ñuy dëkkmal si yàlla subhanahu wa taala def mu di nawetu jàmm sëriñ Abdou Fatah Mbacke ci turu xalifa kër sëriñ Falilou Mbacke daal na gërëm ak sant nguur gi ci matuwaay yi nga xamante ni jël nañu ko ba màggal kasu rajab bi mën a mucc ayib waaye nag daal di na tënk kàddoom ci ndigal gi nga xamante ni moo tënk murit te mu di ndigal goo xamante ni ku sax la du fi mës a jógee